Laissez-vous tenter par le goût unique et authentique de la mayonnaise Jadida. Jadida, la mayonnaise généreuse et racinée. Aïe Salon en tissu, Aïe Salon en velours, tout bas ameublement. Nous vendons ce que nous fabriquons. Nous fabriquons ce que nous vendons. La Traiteur. M60, Maktoum, Beauté Divine Création, Amici Jan, Foulard et Création, Kala Shop, Reflet d'Ébène, Mima Couture Gay, Black et Fashion by Tutu, Jaria Shop, Mifa Création. loo bëgg. Kya laa soxla woon. Kya nekku fi nee na yow jeex na ñibbil. soxna si man Kya mu ko bëgg dimbale ma ngir yàlla nga yéeg si kaw nga wool ko sonn naa trop maa ngi misère boobu ba léegi dimbale ma nga dem wool ma Kya jàpp si danga gisoo seddaay nii ak ngelaw bi nii ma ceene nii tamit dimbale ma dem wool ma Kya jàpp si sonn naa je vais essayer xaar fi. xaaral déglul kii maa ngi fi taxaw. Abdou loo fi def. Kya dimbali ma ngir yàlla Kya sonn naa trop càpp si Kya nga baal ma nga bàyyi sa yi nii ngay def xoola seddaay bii nii ak guddi bii nii depuis boobu ma nekk fii toog sa buntu gaale dimbali ma nga baal ma nga débloqué ma aussi tamit sama message Kya sonn naa trop baal ma. Abdou da ngay misère deewal. man ak yow mënatul nekk sama yaay daf ne xale laa suñu diggante mënatul nekk ngir yàlla bàyyi ma fàtte ma yow maa ngi bëgg a gëm sama rakki lu ñuy wax de yow da nga ñàkk fayda. Kya. maa ngi dem. Abdou. xaaral jox ma sa téléphone. téléphone. di sama numéro bi saa yi ko soxlawee rek nga woo ma dinaa la ko paase. a su ma la naa jot. di ma jot. merci beaucoup Vara n'est-ce pas Adou mami Zahra la de. c'est ça. ma dem Fall xanaa daa am ko koy xool foofu. yow laa doon xaar Matas. maa ngi. gis nga ma patience a des limites. kuy kooku. ma ne sama muñukaay dafa am fu mu yem. waaw. sama doom papi mi ñu jël photo am di ko dugal ci internet bi du ma ko nangu. waaw kan moo def lii ngay wax. xanaa ñaari maire yu fayda yu nekk ci kër googu. da nga ci am preuve. mais am ci preuve moo tax ma ma ma si état bii nii. ah ma ma ma ah. ana yow Mathias ku ma xam xam na ne man. ma mus a préserver sama image doom. Mhm. musuma nangu sax seen benn ñu japp xalé bi dika ko lo eh. dika def lo yifu ñak fay da yifu mankan pour lan lolu jox ma preuve bala nga dem sama ñer kañ jox ma preuve di wax ci air bi kañ te amu information am toi preuve la bëgg li lan la oh. ki du papi papi lu ko ah. indi fi mom ya est-ce do xalé bi ma yar mom mo melni la la la la xam nga lu mu doot bin binal te réglé yaa ngi dégg nga def ndànk fait poire la yang ini, dégg yow mii sa wàll bopp nekkoon nga pouvoir ñu la poar nga ñëw position kon balaa dem euh, pouvoir lu lele la yóbbu ah da defal dàkk rek. foofu leeral ma fa da dama fa jur dom da ngaa nekk en souci dama fa jur doom dom bi man ak moom ñoo si bokk yam defal dàkk man sama wàll bopp yàgg na poar ma ngi poar ba léegi est-ce que yaa li ma lii dama koy réglé damay def dialogue familial. fooy wote dialogue yow. fee ca poar ga. génne na la poire waaye yow na naa la jëlee na yóbbu nga ñëw boo ñëwee toog mu waxtaan na ko bul fànnaaw ndax man yàgg naa. dama gis may naaw ah bul fànnaaw laa la wax. booy wax ak booy wax ak ku am doole dafa dafa am nooy wax ak moom bul yéegal wàcceel te yow bul fàtte ni ci boppam yow na naa la ah. foo xool nañu xool kon boo attaqué pouvoir dafa am nooy attaqué ak moom bin bin tekk ak xanaa li saf na la. daa la may. ah waaw 24 cib jolam. ndax lii daf ma ñor. soo ko rek wul nga xam nga ne bu baax dinaa ko réglé à ma manière. ata. manière. eh way ndaw. yoo xam lu mu doon demal nga ay pneu. Hmm, baax na. Hmm? daal laa la may. kon baax na. Ya waay Ya def Ya noo def waaye mooma de bàyyee ngam jàmm def nga de njaay man ba may ñëw ci kër gi ba xanaa xàmmee wama man heure bu may ñëw ci kër gi dama dama xam ne ñu fi ne ku la ñëwal lii sama benn téere mu xanaa ma xotti fii tontu mbataas bàyyi tooñ nag li nii lay mel ah modèle bay mel nii day mais yaa yaa ci accident <laughs> waaye jaay sa ginnaaw mètre ñaata jaay waay waaye jaay waay yow déggu sànk ci suuf mën lan topp sa ginnaaw mètre ñaata dégg naa ko kay. ana ko déggut dégg naa la nga xam ne loolu yëpp yàqu moom nag yow tamit nag. ah waaw doo ma faale. ah. ah Ndiaye. faale naa la kay. ah waaw. Ndiaye yow moom gis la bëgg la loo ci xam.

de waxuma la xëdd ak nen ak ndogu waaye xola korite sa xaj na ci. lan nga ci bëgg. jël sama coppati. nga jël sa coppati. daal ko ci naaw yi téye benn place. ma jox la sama xol bi. dénk nga ko mat ndénkaan. Eh? waaye mbaa xam nga leer na. Hmm. man dinaa jël sama xol sama xëtër boole ci samay rein jox la. <laughs> Ndiaye noo ma gis. pat leen rek laa bëgg. Ah. ñu def ko en sourdine ci suuf na nooy li bay bay bu naan na nooy na nooy. yëpp man képp na nooy. am waaye Ndiaye daa xam nga leen la. Hmm. Sénégal yëpp nee nañu yow Viviane teg teg <laughs> kiif kiif. benn ngeen yow waxuñu la. du ma laal. dafa eh! rafet ba mu ëpp kooku daa rafet ba mu ëpp. waaye bu ma waxati lii. gën na ngeen nag Ndiaye. yaa wax lii. Ndiaye da ngay piis. Eh! <laughs> waaye Ndiaye <laughs> ngi ci suuf. dégg naa. Eh! yow. tëj nga

toogal noonu nii voilà. yow maanaam danga maa yëpp wala. allo. yow ma moom sama kër nga ma fiy indil ay dialogue rawatina nag nga may indil des personnes non grata. Euh, euh, noppi rek te déglu mbokk yi jotaay bii man mii maa ko sàkku woon. ndax dialogue familial noonu woote. li tax ma wote ko nak moy dafa am lu xew te li xew mës na xew tubaab moo ni le le les on se lave en famille am de mu am lo xamante nak nag na ci kër gi lo xam bokul ci kër gi ñu ko a koo dindi sàll jàll ci biti ak lu ñuy sànni lan la. billaay ba ma ba ma mayee nopp ma ñëw. demal Fadel mii judd na ba heure bi mu tol musul feeñ euh, euh, euh, imo moom mii. yow mii ndayam judd nga ba tol nii nga tol musoo feeñ ah, bay bër. ah ah dégg ma rek. subhanallah jaara mii nag nga xam ni ci kër gi la ne. ku ne xamna mesti kanamam gi mësta génn ci whatsapp ndaw gi papi Sam papi sa papi hmm. bu nu gisee papi mu def ponkolum live tiktok ah! yow yow li ba jàmmale yow eh yaay eh. di di lu def non yaay yaay bon va maman ça va hein ça va pas Fadel je m'adresse directement à toi Il y a une éducation papi sama m'a la dernière fois Tu gis papi il rentre avec moi vais récupérer sama il n'en est même pas question. Je ne pas le choix laa la wax. papi sama ma ne man papi je ne choix. papi man may sama ci. ñun

Elle ne comprennent rien ces dames ah yéen pare gu ñu ngi waxal ay waxu TikTok papi day dem. Euh, xam nga lu mu doon soxna si looloo waral dialogue bi. pour ñu jëm cee sàkk pexe. fii amul benn solution bu ñu fiy Ah. ñaari condition yi rek moo am. xale yi dellu seen kër baay. man ma hmm. des ci biir kër gi mbaa man ma génn kër gi bàyyi ko xale yeeg ah non tout sauf ça. yéen lan mooy loolu dafa doy jotaay bi, ay kilifa doo nga fi toog. te tok waxtaan dans le calme sax mënu leen ko. Khadija yow nag yaa ngi bëgg jaaxal de yow détails yi moo war a tax nga ne danga bëgg bazarder sa sëy bii gis nga kër gi danga mère lay waxal.

nan dem yéen a nu lakkal te sonal nu waaye nan on se vendra Fadel yow nak lay waxal man pour la première fois ma gis Fatima mi am deug ci yow gis nga seen assemblée na familiale bi ngeen fi woté benn constat rek laa fi am moy que né depuis un certain temps papi dafa changer complètement solution bi nag lén rek la moy nga bàyyi xale bi dem kër yaayam. de, eh, eh, eh, de. soxna ci defal ndànk ana ci kan mo xamante ni ne d'accordul ci ci lim wax. man ah. duma nek ci kër gi di fi sëy papi Fall la sant kër gi kër bayam la. du ma nangu ben ñu jël samay doom baye len ci biir kër gi jël papa bi génné ko ci biti mhm. lén rek moy mëna am xalé yi nañu déllu seen kër baye papi des kër bayam man li laa wax. vas-y. Euh, vas-y. écoute Fadel ah da nga jënd muuma. Matas Mbaye Matas. hein qui ne dit rien constant. kon xam ngeen lu mu doon assemblée générale bi d'accord nanu papi ñibbi kër yaayam la séance nag élevée hein Hello.